asalaamaaleykum euh, mbokk yeeg euh, xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg euh, seen site bi di vingt 24 Kër Mbaye dellu siwaat ci rubrique ñaw xalima Euh, fas yéene dalal gan gan laa koy tuddee du gan nag ci li muy def wala euh, ci li muy yëngu waaye nag gan laa koy tuddee ci biir kër gi fexe naa ba luxati ko indi ko teg ko fii àndandoo ak moom ndax nee naa leen euh, yéen koy demande maa ki koy donné bu ngeen ko fi du nu ko mës a prendre te comme nag li leen yitteel moo ñu tax a jog kon dañuy leen di indil kenn ku ci nekk saa su ne rek gan goo xamante ni macha allah fa tabaarakallaahu Cheikh Kamal Fall maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la bàyyi nga nuyoog mbokk yi internet yi. waaleykum salaam wa rahmatullah akay soxna Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ñëpp di ñaan suñu borom def ñun ñoom ñëpp suñu kàddu fekk leen ci jàmm di ñaan bu baax a baax ñi nga xam ne dëddu nañ dëddu nañ àdduna suñu borom yërëm leen jéggal leen mm-hmm. di ñaan itam bu baax a baax ñi nga xam ne ñi ngi ci lali hôpitaux yi mm. euh, suñu borom yëkkati leen ñi nga xam ne caabi feet na leen ginnaaw te ñoom te dugal leen fa suñu borom gindi leen mm. génn leen mm-hmm. Mm-hmm. am na solo Euh, kamal gi mooy lan kamal mooy lan. waaw kamal nag laaj nga lu am solo. Mm-hmm. loolu boo gisee kamaal gi. Mm-hmm. maa ngi jànge ci jumaa ji. Mm-hmm. Euh, jànge fa xam-xam ay at. Euh, diine lislaam moom yaakaar naa ni nit munta laaj lu ma la lu ma la ci munta tontu. bu loolu jàllee itam xëy na sunu gëstu ginnaaw bi ñu jàngee xam-xam ba noppi. dem fu ne gëstu fa xam-xam ci anam gu ne. ak xam-xam bu ne nag ndax suñu Cheikh Gaynde Fatma daf daa wax naa xam-xam xaw ma bokku ca. moo tax ñun xam-xam bu ñuul ak xam biñ naan xam-xam bi nga xam ni mooy nooraani yu ak mhm. xam-xam bu ñuul yëpp mhm. lañ boole jàng mhm. donte nag euh, du caaginu dañ koy def wala duñ ko def loolu moom du lu ñuy wax waaye daal jàng nañ ko ba xam ni ko nit ñi xamee ndax muy xam-xam bu ci nee dafa am importance euh, li ci am solo daal mooy xam-xam moom benn bonu ci xam lu bon te di ko def mooy li bon waaw ndax ndax boo xoolee Euh, rabu àll woo gis wuy dox ci mbedd mm. ak wu dee ak foo ko mën a fekk ak nu mu mën a mel mm. am naa ci xam-xam garab goo gis gu mu mën a doon ba mm. ci gi bare gi néew ak yëpp am naa ci xam-xam alquran baqara ba naas yi aaya bu ci ne mën naa laa wax lu mu doon ci wolof mën naa la ko traduiral ci arab te xam naa bu baax a baax a baax aaya bu ci ne lu ko tax a jóg ni nga xamee ni maa farat naa fil kitaabi min shay'in suñ borom bawut dara ci al alquran mm-hmm. mm-hmm. bala maa dugg ci loolu mhm. euh, dañ doon ubbee rek li waral kamaal gi mhm. macha allah fa tabarakallah mu nekk xale mhm. dinaa ci ñëw mais dafa am coow loo xamante ni mi ngi ci réew mi euh, kamaal noo ko gisee waaw coow loolu moom mm. xanaa day door a jóg rek waaye coow la woo xam ni soxna Mbayang du fay mukk mm. du mukk mukk mukk ndax boo xoolee li tax du fay mm. mooy dafa am mbir mu ma ci xam seet ko ci ay kilifa démb rek ñu ngi may woo di ma ci laaj fekk ma waxoon ko jamono yële jàll ni leen mbir a ngi xew moo xam ne ci Sonko. Mm. a ah, la ko koy la ko koy teg du ko foog. te mm. lii kenn foogu ko woon. déedéet te itam li tax ma ni mbir la moo xam ni dafa fees te du yàgg te du te du jeñ te du dañ mukk ci ci di du dañ mukk. Mm-hmm. mooy euh, Ousmane Sonko Ousmane gi 661 la boo doolee Sonko dala jox 1137. Mm-hmm. buñ demee ci turu yàlla wiñ naan al zahiru ndax mm-hmm. doomu aadama bu ne. turam mën nga ko adat jël ci benn turu yàlla az-zahiru day 1137 ba tey. Mhm. bu ñu demee ci tabixam tabixa bi day xëwa yu ngelaw. Mhm. te soxna Mbayang tabixa koo xam ni tabixam ngelaw la kooku lor ko lu jafe la. te kooku suul ko itam lu jafe la moo xam mu ne ci politique moo xam mu ne ci lu dul politique. Mhm. te waxtu wu ne day fës. loolu cërub suñu borom la boo xam ni kenn ku ci ne ak nam la ko cërale. ku ci ne ak nam la ko cërale. ni nga xamee ni kii euh, tabixam day doon naariyu kii tabi'am day doon hawa yu kii mm. tabi'am day doon maa yu mm. kii tabi'am day doon tuwaari bi yu mm. noonu la demee rek moom yàlla def muy hawa yu mm-hmm. muy loo xam ni itam euh, daanaka bettul euh, man boog bettu ma mm-hmm. te xam naa ni ko xam lu bari ci li ma xam di nga xam ni bettu la mm-hmm. waaw ndax nit ki doomu aadama bu ne rek boo xamee tabi'am lu bëree bëri bu ko ganesee dëgg la nga xam ne li du la bett yow la bett kon euh, loolu affaire à suivre la bëgguñu jël suñu temps mhm. incha allahu taala dinañ ci ñëwaat euh, gën ko yaatal euh, beneen yoon dinañ jël itam xaatim tabian ak mhm. yooyu muy wax noonu mhm. bagage yu sew si sewaan yooyu mais ba tey Kamal bu ma dellu si waatee ci yow nga nekk ndaw ndax dafa am loo xamante ni dañ la ko sol wala ndax dafa am loo xamante ni may suñu borom la goo xamante ni moo nekk ci yow ba en général loolaa la gën lu mu laalul waaw loolu nag yàlla def na. Mm. dëgg la doonte macha allah bokk nañu fu baax. Mm. Euh, ndax sëñ Moustapha Fall moom daanaka du ko ñuy présenté waaye nag. Mm. xam-xam dafa ajuwut ci loolu. xam-xam soxna Mbaye ci lim aju mooy jàngi ndax dañ ni. Euh, doomu aadama doo dégg wala fi naan doomi mbër jàngil bëri. waaw yàgg yàgg des na la ñam mm-hmm. kon nag du caaginu da ngay doomi mbër rek waroo jàngi bëri déedéet. Mm-hmm. ndax xam-xam Euh, minal maadi ilal lahdi dafa jar lu ne te ki ko am ak ki ko amut mënuñoo yem al alxuraan daf ni ñi nga xam ne xam nañ ak ñi duñ yem ni nga xamee ni euh, xam-xam ci boppam jëmmi alquran laa tastari bi ayati zamanan xalilan kenn du ko jënd ci njëggu yomb dafa riis dafa am valeur ndax boo xoolee am na benn kilifa gu mas a wax ni alquran valeur bi mu am képp ku ko xam képp ku ko xam danga jël sa doom def ko ci ngir dundam muy gëstu alxuraan ak di ko jàng mm. ndax lépp lu mu mën a am ci njariñ rek mm. ak njariñul adduna ak loolu alaxira mi ngi ci biir alxuraan mm. mu am solo loolu xam naa ni gars yi yàkkamti nañu numéro bi mu ngi noonu dèjà ci suufu écran bi waaye mën ngeen ko jël ba tey itam euh, Serigne Cheikh Kamal Fall euh, ci 77 541 08 85 77 541 08 85 wala nga def 78 451 74 40 78 451 74 40 mi ngi fii ci Ouest Foire en face SDE bi SDE bi nga xamante ni boo rombee pont Foire jëm aéroport weneen wàlla wa rek ca Nord Foire foofu la nekkee boo ñëwee ba foofu rek wooteel ci numéro yi incha allah dana la boole ku la jël si ba tey Kamal am na loo xamante ni nëbb nga ko parce que bi nga commencé ñaan yàgg na mm-hmm. nekk ndaw mm-hmm. am na sax ñoo xamante ni jege nañ la bañoon nañ ko. Mhm. lu waraloon loolu. waaw loolu moom dañ doon wax naan euh, gone la. Mm. gone warul di dugg ci wàllu ñaan fekk xam-xam du loolu ndax man. Mm. Mm. jumaa ja ma ne woon. daanaa fa jàngal ñoo xam ni ay paa lañu. ñu ma mat maam. jumaa jan la. jumaay Tuubaa ju Seexul Xadim ji. Mm-hmm. xam nga kon loolu ku ni fang kenn du ko jeex. den kenn du ko jeex waaw fa laa jàngee parce que man internet yi sunu gaal 24 laay wër. mi ngi laa jàngee. Mm-hmm. denc réer. Mm-hmm. xam lu bari jàng lu bari. lu bare bari itam mm. umpatuma mm. Euh, xëy na liñ koy waxee mooy gone gi mm-hmm. ak euh, euh, ñu bare bari fi mu ne booree gone di jëf yenn yi rek mm-hmm. dañ lay yéemu waxtu wu ne mm-hmm. te man yàlla dafa def li ëpp solo ci nit mm. dafa ne ci man muy kaaraange ndax ba mu ci dugg yàgg na te ba nii waxtu wu ci ne maa ci ciy faj aajo doomu aadama te musuma wér di wér di xel dara musuma dal te bari nañu dugg ci ñaan mhm. euh, commencé koo tàmbali jëre ci wér di xel ndax mhm. def lu ñu war a faj lu ñu war a faj ku yàlla bind feebar bu la mën a dal mhm. dama koy faj ak i feebaram du yëpp nag yu ci bare bari dama bu ko yàlla nattoo dama damay faj nit ki nit ñi di la woo nga di leen li saxaaral di leen digal ay sarax ak yooyu li saxaar gu leer naññ euh, ci lan ngay sukkandiku lan ngay li saxaaree waaw listixaar soxna mbay ni koy defee mooy dañ koy def ci euh, ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa defee mm. ñun dañ koy fanaanoo xam mbiri nit ki mm. léeg-léeg itam nga gis mbir mu jàmp moo xam ni mm. euh, day day doon loo xam ni mënul ñàkk daal bu boobaa dañuy def ad-daruraat tubiihu mahduuraat rek mooy euh, jàmp gim jàmp dana tax duñ ko mën a seet duñ ko mën a listixaar yi dañ koy daal di seet rek xool ko mm-hmm. waaye listixaar dañ koy def fanaanoo te listixaar dafa am solo ndax boo xoolee nit ñu baax ñi Euh, téere rek waxuma laa la téere rek buñ ko masaa di bind dañ koy listixaar ba noppi mhm. ba xam nu suñ borom bëgg téere bi dëppoon mhm. kon loolu dafa am solo listixaar mhm. nit ki xam lim jëm ak fi mu ba dara du ko ci bett ndax àdduna lu la bett man la d'accord jërëjëf yaakaar naa ni loolu leer na nañ ci wàllu ni euh, dañu koy daal di def ci bëccëg bi daar daar waaye bu mu ci mënti doon rek macha allah dina la ci génneel résultat bu wér a wér a waaye nga xool ci itam gis ci ne nit kii dafa ubbu wala nit ki dafa am ay gàllankoor def-def yu nekk ci yaramam. Mhm. ñaari mbir yooyu doon sa yëf. Mhm. Euh, maanaam lu ubbi nit ki ak lu dindi def-def yu nekk ci yaramam. ba mhm. noppi soog ko defal ay ñaan euh, yooyu alxuraan ji la bi wala xam-xam bu ñuul la. waaw soxna Mbengue euh, nga xam bu ñuul. ñun biñ koy jàng jànguñ ko ngir ni. nit ñi dafa gaaw wala dafa yeex non alxuraan moo gën a gaaw sax xam-xam bu ñuul. ci kaw nga laab laab gi ko yellool mm. mat ko sëkk mm. ndax maa faratna fil kitab min shay'in suñ borom dafa wax ci alquran ni bawuma ci dara mm. te alquran wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahma alquran lépp a ci biir suñ borom daf ko wàcce ngir muy saafara jàngoro nit ñi amul dara loo xam ne alquran mënu koo faj moo xam nit ki umu ndax umu bari na ci yoo xam ne moo koy gàllankoor ci nit ki nit ki sobe dana ko waral jafe-jafe jafe-jafe itam ci doomu aadama bi ci ay kum tooñ wala lum laal te waru koo laal loolu lépp daf koy waral waaye yàlla dafa def ñun lum ci mën a doon dañ koy xool ba pare rek ndax ñun mbir mënuñoo tëb tëb dugg ci ndax doomu aadama bi faaw nga xam tabihaam faaw nga xam biddiwam loolu da lay mën a dimbali bu baax a baax ci nga mën a dimbali doomu aadama bi te doo ci sonn te loolu lépp boo ko xamee xam li nga koy ñaanal itam soxna Mbayang ci alquran laa wax de mën naa bañ a mat 24 heures ci avant émission bi commencé boobu ba léegi am na benn point boo xamante ni kooku moom bu ci teel a dugg man maa ci dugg sama bopp 24 <laughs> heures ngay may nit ki délai man loolu ma yéem euh, euh, euh, xam naa yéem na ki may seetaan waaye jëla 77 541 08 85 nga xaar ma tuuti dinaa ñëw ci loolu. Mhm. nga ne mën naa bañ a mat 24 heures. man na ko bañ a mat man man <laughs> xam nga li gën a yéeme ba gën a yéeme téléphone di ma kalaamee ak yow de. <laughs> kenn du la woo di la kalaamee man ndax man yàlla dafa def. Uh-huh. lii nit ñi wut ak uh, wut nii man ba ma ko amee daa yàgg. Mm. muy faj doo aajo doomu aadama ci lu matul vingt quatre heures. Mm. du du ma ni lépp la nag. Mm. waaye lépp lu ma ni vingt quatre heures rek jàppal ni vingt quatre heures yooyu du ko mat soxna Mbayang aajo aajo nit ki fajo mu gis ci résultat dama ni la lépp lu ma lépp lu ma la ni vingt quatre heures xam na am na yoo xam ni xam naa di ko laaj ci kanam ndax da ngaa sof waaye nag. <laughs> ah sa <laughs> ne yaa fay <laughs> waaye li daal mooy. am na ñuy àgg ci kanam yoo xam ne moom it 24 heures la. 24 heures la. Mhm. ndax xam naa dem nga laaj. <laughs> Euh, Cheikh Kamal Fall jooni jooni moom laa dalal tey léegi maa ko ci tafal jooni jooni ji macha allah incha allah dinañ ci xam dara waaye itam am mbir moo xamante ni itam dafay sonal nit ñi. Mhm. am na ñu bari ñoo xamante ni duñ ci bëgg a dugg ci wàllu ñaan. Mhm. wala sax duñ leen ko laaj. Euh, ki la ameel bor bañ la ko fay jël sa kër bañ la ko fay yooyu Kamal di ci def yu yu am solo ban sa secret nga ciy jëfandikoo. waaw mbirum fay bor moom mm. dama koy defar faj faj ko nit ki ba mu faj nit ki ci mbiram mm. ba ki ko yoreel fay ko waaye nag mm. mbirum fay bor li tax euh, moom mënuñu ne vingt quatre heures la mm-hmm. bërki démb rek am na ku ma ko doon ñaanal mm-hmm. te bi ma ko xoolee ba noppi dama ko ni vingt quatre heures moom du ko mat gàtt gàtt na dem set suur li koy waral nag mooy mm-hmm. doomu aadama bi ci boppam dafa am ñooñ ñi koy ameel bor mbirum këyit la woo xam ne dañ ko war a topp ñoom buñ paree pour fay ko sax mhm. boo defee li nga ne bañ paree pour fay ko mënu cee jot ci 24 heures bi ndax lu ñuy topp la waaye nag bu dee nit ki yaag nit ki dong la mu war laa fay mhm. boo ñëwee ci ñun bañ jox la li ñu lay jox mhm. da lay fay waaye nag ba tey li ma ta leeral mooy ndax ki ñuy defal ngir mu fay ko ndax ki ko war a fay yor na lum ko fayee yor na ko fayee loolu daf ci am solo ma foofu mbiru fay bi parce que dama dégg di ci def ay mbir mais léeg-léeg nit jël nekk nit boroom xaalis. Mhm. nga xamante ni da nga koy jox sa xaalis ne ko jaay ma terrain wala jox ko sa xaalis ne ko jaay ma nangam. mu mhm. leer ni kii am na. Mhm. mu wëlbatiku jël sa xaalis ba pare bañ ne du la fay chaque jour mu ubbi bureau di gën a récupérer ay xaalis man foofu laay waxee. waaw fi nga wax nii barki démb rek maa ngi koy wax. jamono Sénégal sax laay wax lu ci bari dañoo dañoo dañoo toll foo xam ni. nit ki dañ koy tooñ ba nag mu tiit ci boppam. waaye ku mu mën a doon buñ la tooñee. ku la mën a tooñ ak ndombal tànk lu mu mën a am ci àdduna bul jaaxle ñëwal. ndax nit la. te moo la tooñ itam mm. te man mi koy def waxuma la dara waaye ginnaaw bi dama ci am yàlla gu wér mm-hmm. ndax mbirum fay bor soxna Mbaye aaya bi gën a gudd ci alquran mu yaa ayyuhal ladina amanu isaa tadaayantum bi daynin ilaa ajalin musamman ba mu jeex mm. euh, mi ngi waxtaan ci mi ngi wax ci mbirum fay bor mm. boo boo boo boo leb nañ la wutalub app te bo app baak a nga fay ku ne xam na ko ndax xuliqal insaana dahifan doomu aadama suñu borom daf ko bind ci doyadi moo tax ngant loolu saa yu dabee doomu aadama bi rek ndax nit dana bëgg a fay sax te du yor lu mu fayee nag moom munuñ munuñ munuñ te munuñoo def munuñoo def lu tax mu fay ko ndax yorul lu ko fayee. daanaka dañ koy lor rek. ndax li ñuy def euh, nit ki li fekk fayu ko du am jàmm. kon nag ki nga xam ni yorul buñ ko bëggee def loolu dañ koy lor ndax léeg-léeg ñu xoolal nit ba noppi. ni ko jërëgu dugg mbirum fay bor bi moom baal ba ca kanam fii ak jamono nga waxaat ma ko. li koy waral nag mooy day fekk ñun dañuy xam ni bu baax ki ko war a fay bor bi. Mhm. yorut lu mu ko fayee. waaw yow daal ki la tax a jóg mooy ki am ba pare di ñaawal. waaw wala wala nit ba noppi. ëpp la mhm. doole ba noppi di wan ni moo la ëpp doole. Mhm. tooñ la ba noppi ak tooñ nga nu mu mën a demee rek. moo xam bu dul fay bor sax. ne la du du mujj fenn. ne la du mujj fenn loolu moom du dëgg loolu moom ku fi ñëw wax moom nit wax la ko. da nga xam ne du dëgg. mbirum fay bor moom soxna Mbayang am na sëriñ su may seetaan soo xam ni. dañ leen koy jàmbat ñu ñëw jàmbataat ma ko ma saafaral leen ko c'est que da sama ndékki parce que dégg naa gaay dañuy courtier ci yow waaw <laughs> ah, mu ngi noonu euh, Ouest foir la dëkk en face SDE bi boo rombee pont Foire bi rek macha allah sd e bi bu fekkente ni yoonu yoonu Tëngéej bi nga jógee sd bi mi ngi lay féete ci sa droite euh, kër gi mi ngi lay féete euh, ci sa gauche ci beneen wàll bi ci Ouest Foire daal en face sd e bi wala. en face station Shell bi 77 la 541 08 85 wala 78 451 74 40 ba tey ma ñëw ci li nga xamante ni mooy gaaf. Mhm. ci lu gaaw parce que da ngaa nekk gan goo xamante ni mhm. la man damay kontaan ci àndandoo ak yow gaaf. Mhm. gaaf mooy lan ci lu gàtt gaaf mooy loo xam ni day yàqal doomu aadama bi ci lu baree bari te du doon loo xam ni sax euh, lu am nattu la ndax nat nattu la boo xam ni sabab moo koy waral mel ni nga def dara ndax euh, yonent bi saa sallam moo waxoon ni yaqulu innama sumu fi salatatin fil farasi wal mara awid daar dafa am ñett yoo xam ni gaaf la ñu ni ko ban ak ban la mu ni ba ca jiitu mooy soxna ba ca dolliku mooy daamar ba ca dolliku mooy euh, kër dëkkuwaay mooy dëkkuwaay mhm. ñett yooyu bu ci ne gaaf la nit ki bu ci ne mhm. nit mën na cee dugg commencé tumuranke ci addunaam mhm. loolu nag dañ koy xool ba pare te lu lu la lu mbir la moo xam ne lenn ci nit ñi farataaluñ ko mm. te lu ëpp doyadal la kenn du ko mm. doyadal mm. muy ñett yooyu ndax dana la ci bi ngay dugg ci ñett yooyu lu ci ne nga mën ci am ndam ndax ñett yi ma la wax nit dugg na ci ba tàyyi rëcc ko nit dugg na ci nit ndax soxna da gis koo xam ni day bëgganteeg nit waaye bëgg ga day toll foo xam ne du mën a jiital am xelam boo ko nee bu ko def sax du ko def waaye nag nit def na ko ba tàyyi ñëw di ko rëccu ginnaaw ba nga wàcc soxna sax te waxoon ba ba fekk na mag ñi moom. du bidan sax ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu mu wax rek du bidan bidan buñ ko waxee mooy. Mm. Euh, loo xam ne ginnaaw yonent bi la am. waaw ñu naan bidan mustahjana ak bidan mustahsana. Mm. waaye bidan mooy loo xam ni. Mm-hmm. ginnaaw yonent bi la am te lii yonent bi alayhi salaatu wax na ko. Mm-hmm. loolu du bidan. am na solo dafa bokk ci nit kon daal ñett yi ku ciy dugg. Mm-hmm. kër wala euh, soxna wala borom kër. kër. Mm-hmm. ak daamar yooyu yëpp danga ko war a xool ko war a xool ba pare jox la ci ay tegtal bu baax a baax a mm-hmm. baax mm-hmm. incha allah xam naa ni gars yi mu ngi noonu numéro baa ngi ci suuf danañ ko jël euh, temps bi moom laay xëccoonteel te li ma war a wax ak moom dafa bari waaye lu jëm ci wàllu ñaan itam léeg nit ñi dañ koy dingat ñaan ak ñaan loog yooyu euh, nit ñi dañ koy dingat mais nga yàgg ñaan macha allah teraanga bu nekk nga am ko ci catuuma la nag waaye euh, daal jarul ree man catuma la parce que sëriñ si dama leen di catu dama leen di xam dama leen di gëstu bu euh, baax a baax a baax. Euh, wàllu ñaan laa bëgg nga ñëwul ñu ci tuuti rek. ñaan moom soxna mbay ku ni amut moom. Mm. mooy ku réeree mbir. Mm-hmm. ndax euh, alxuraan dafa wax ni. Mm. booy wax ak aji réer. Mm. nee ko jàmm laa bëgg. ndax ñaan yonent bi salaam dafa wax ni ajasun naasu man ajisa ani duhaa yi ki gën a doyadi ci mbindeef yi mooy ki gën a doyadal ñaan. foofu rek yem yem na ci tontu. Mm-hmm. ki gën a doyadi ci mbindeef yi. Mm-hmm. mooy ki gën a doyadal ñaan. te ñaan dafa doon lu mat a fonk mhm. ndax dafa am ku ñuy wax Haarut ak Maarut ñëw nañ ci alquran dañoo ñëwoon ñoom bi ñuy ñëw di xamal nit ñi xam-xam boo xam ni mhm. maa yufarriquuna bihi bayna al mar'i wa zawji mhm. mooy dañuy fexe ba tàqale ñaar ñuy sëy loolu alquran moo ko wax ñooñu dañ doon xamal nit ñi xam-xam boobu di ko def ba alquran ni képp koo xam ne def nga ko rek azabun alim bugal mu taratar ñel na la kon nit ki dafa war di ñaanlu di aar boppam bu nekkee cib sëy di sëy sax sëy ba neex bu leen mukk bu leen mukk ndax duñ tay xanaa xamoo ni soxna mbay am noon du tàyyi ci cib noonam du tàyyi du sonn saay saay du tekki ngembam dafa yolomal rek mi ngi noonu du ci tàyyi mukk lu mu yor mën na ko cee def moo tax ñaar yi nga xam ne nekk nañ di sëy lépp luñ mën a wut ci kaaraange buñ ko xeeb ki nga xam ne mi ngi ci bërëbu liggéeyukaay lépp lu mën a wut ci kaaraange foofu bu mu ko xeeb waaw côté bërëbu liggéeykaay yooyu gis naa itam kilifa yu bari say say say say nit lañu mm-hmm. ndax wàllu yokkute ak wàllu samp nit mm-hmm. da nga ciy yëngu Euh, nga nekk ku xat koo xamante ni daanaka guddi gi. Eh, mhm. kilifa yu bari dañuy ñëw ci yow. Euh, secret bi lan la. waaw loolu soxna Mbayang. Mm. Euh, li ko waral mooy xëy na ñàkk a ñàkk ñàkk am jot lu ci baree bari waaye lu ci bari nag. Mm. nit ñi dañuy ñëw. Mm. moo xam kilifa yi ak kilifa gu mën a doon. ndax ñun moom ñi ñuy ñaanal ñu ci baree bari réew mi xam nañ leen. waaye nag loolu ñun taxuñoo jóg li ñu tax a jóg rek mooy ñoom ak ñu dul ñoom itam ñi ñun ñu xamut. Mm-hmm. ku ñëw sa aajo faju mm-hmm. donte dañuy xaw di xat jamono du ñu a tënk comme mm-hmm. uh, ci mën a doon rek boo ñëwee sa aajo faju ndax man donte uh, jot gi demewul noonu fi mu ne ki ma xës commencé ñaanal kooku saa yu ma soxlaa bu ma jàpput damay jot ndax kooku dafa am àq ju dox sama digg ak moom muy am na uh, jëfam ju joo xam ni am na lu ma ko war a mat mottalil dëgg la kon loolu faaw day mat ba not ma mën a féex ci moom loolu dafa am solo ci kàttanu yàlla yàlla na ko yàlla li fi may jeexalee mooy xam naa nag fi gaa yi xaar. Mhm. muy euh, mbiru néegu sëy moom. Mhm. moom da ci kaful reewoo ci amoo ci caaxaan. Mhm. lu tax nga taxaw nga ne problème mu sëy ci vingt quatre heures lu tax nga taxaw foo ko foo sukkandiku. loolu moom ñi lay seetaan sax ñu ci bari tey ay kilifa. Mm. danañ la laaj lu tax nga laaj laaj boobu. Mm. ndax dafa bëri loolu ba tey sëriñ soo xam ni maa leen koy jox fii. Mm. sëriñ si bu buñ doon cent quatre-vingts yëpp ma leen koy jox. Mhm. Euh, loolu nag du ma du ma ni nii laa koy defee naa laa koy defee. Mhm. waaye ñi ñi koy jële ci man di ko joxewaat. Mhm. ba tey li ñuy def dara nekku ci ndax lu baax la. Euh, ndax njariñ moom. li ci am solo mooy ñoom bu ñëwoon ci yow fajuñ sa aajo rek. donte ñu ngi ko fiy jëlee di ko yóbbuwaat di ko jox nit ñi seen ajo di faju ñoom ñi ngi def li leen war waaye dama la bëgg a xamal ni la loolu. dama ci amug may. goo xam ni maa koy defal sama bopp muy mbirum néegu sëy ndax li may jox nit ki mu di ko naan euh, awraam sax bu fas woon day fecc ko mm-hmm. mën a gudd mm-hmm. te itam euh, fi mu ko naane mm-hmm. fi lay gis résultat fi mu ko naane laa fi mu ko naane waaw la wax euh, léeg-léeg itam ma jox ko nit te du am soxna daanaka bu dee kuy sàmm boppam dëgg day mujj am lu ko metti moo tax loolu ku amul soxna nu sa awra mën a mel jërul jël da nga koy yokk wala da koy wàññi non waaye nag liñ lay jox moom boo ko jëfandikoo euh, du mat semaine. Mm. sa awra bi moom dana dellu gën a yokk waaye nag euh, awra dëgg dëgg warut a jéggi cinq centimètres. Mm. liñ lay jox nit ki bu ko naanee day day rëy te day yokk. Mm-hmm. loolu xam-xam la rek xam-xam la comme xam-xam yi. te du delluwaat. déedéet du dellu mukk te loolu boo ko xësee jël. ba ba ba ba gis ci liñ la wax ba noppi bu la neexee mën nga koo bañ a jëlaat sax ndax am na ci ñu ngi koy jox ñoo xam ni du du du du jot a jeex sax ñu ñu ñu li ma yor ci ci vocal yu mel noonu kenn xamul nu mu toll. xam nga nit ñi wax dëgg yàlla euh, seen aajo dafa mat dafa mat a fonk. Mhm. dafa mat a taxawu dafa mat a jublu. Mhm. ndax wax dëgg yàlla ki am aajo jëm si la. Mhm. kooku fexeel ba aajoom jooju lu mën a xew rek na ko faj mm-hmm. ndax loolu di nga ci am payu yàlla gu rëy rëy am na solo mm-hmm. euh, mu ngi noonu Serigne Cheikh euh, Kamal Fall moom la ñu àndal ci émission bi mm-hmm. euh, taalibe Serigne Touba macha allah jànge Touba foofu ci jumaa ja tabarkàlla di borom xam-xam bu wér a wér a wér baaye bala maa ñëw ci leneen li may tëjee ndax da ngay faj ndoxum siti waaw wala déet ci lu gàtt rek ndoxum siti moom soxna Mbayang mm. ndoxum siti moom du lu faj déedéet du ma faj ndoxum siti de ak siti nit yi sëriñ yi xuuse. ah du ma ko faj de moom <laughs> loolu de moom comme dal moom. bu ma hémorroïde nag. hémorroïde ko faj hémorroïde comme dal na nga wut euh, laaj ak lay duur. Mhm. ba wutee laaj wut lay duur. xobu xobu lay duur wala sunguf lay. non sungufu lay duur la nit ki wut. waaw ak laaj. Mhm. wut sungufu njàndam. njàndam loolu bu ko booleeg lay duur li di ko naan. Mhm. balaa mat semaine mu faju bu dee nag. Euh, yooyu noonu bu ne ku mel ni ku ne bitim réew nga xam ne yooyu daf koy jafe mm-hmm. mën na wut laaj euh, boole kook lem di ko yëy mm-hmm. wala mu wut laaj baxal ndox ba mu tàng mu di ko naan waaye yooyu moom du ma ko faj moom lii ma ci wax mënu ma ko weesu mm-hmm. lii ma wax ku ko def juróom-ñaari fan moo am ko tane bu soobee yàlla waaw léegi jëkkër ju wane ginnaaw ak jabar ju wane ginnaaw boobu it ci vingt quatre heures yi loolu dama koy delloo si vingt quatre heures du ko mat xam nga xam-xam duy caaxaan même lii ma joxe nii ba baaxee ko nit ñi ku ko def sept jours yi ma wax du ko mat jëkkër ju wane ginnaaw wala jabar ju wane ginnaaw dama ni soxna Mbayang loolu képp kum dal. laa la wax sept jours yi du ko mat. jooyloo naa ci ay nit ba tàyyi ndax doomu aadama bu kontaanee kontaan ba lool day jooy. Mm. bu amee naqar lool day jooy. Mm. ñaari yooyu yëpp ñaari ñaari jooy yooyu ku jooy ñëw da jooyaat ñëw. jooyu mbégte sept jours laa la wax. du ko mat dañ la jox noonu exemple waaye du ko mat nopp moom ci dëgg dëgg wërtu jéggi ñetti fan dañ la wax noonu rek. gaa yaa ngi seetaan de te après man la ñuy woo. li wér wóor mooy képp koo xam ne ñëw na fi moom dana la jaajëfal. yaa wax li ku gis contraire ba itam nag ma woowaat bu ma ko tegee fii wax kook moom gaa yi nag bu doxee duñ ma woo waaye nag dina xam ne dox na bu kalaame gi baree ma xam ne doxul mu ngi noonu euh, sëñ Cheikh Kama. Mhm. looy tàggoog mbokk yi tàggoo boo xamante ni dem dellu siwaat lay doon sous peu de temps nag. Mhm. parce que bëggaat naa la fii ci plateau bi. incha allahu taala di leen wax ni jot. Euh, lu jot ñàkk teewut mm-hmm. dinañ ñëwaat mm-hmm. waaye itam di leen ñaanal bu baax a baax mm-hmm. euh, ndax ñoom moom war nañ laa sant ndax wax dëgg yàlla yaa leen di taxawu bu dul man it yaa ngi jëli ñeneen te xam naa ni yaa ngi lijjanti ñeneen itam ngir ñu ñëw lépp rek ngir bëgg leen mais yaa ma saf <laughs> ah kon baax na <laughs> temps yow laa doon wër ah kon kon ñëw nañ <laughs> kon ñëw nañu kon ñëw nañu. jërëjëf kontaan bu baax a baax. Mm. incha allahu taala. incha allah ñu koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Cheikh Kamal Fall mi ngi dëkk fii euh, ci Ouest Foire en face euh, SDE bu Yoff wala bokk nga ne station Shell bi foofu yëpp foofa taxaw rek wootee ci 77 541 08 85 wala nga woote ci 78 451 74 40 incha allahu taala di nga ko jot. Euh, guddi gi nag euh, bu guddi gi xawee dem ba sori dana nekk ci kurus gi ak yooyu des fois mu xaw a naqaree jot mais insister leen rek euh, jot ko ndax nee naa leen kii ndaw la macha allah yàlla def na tarbiya na xam-xam te it nag lu mu laal a gën lu mu laalul kon fexe leen mu laal seen i mbir su ko defee ñun ñëpp ñu àndandoo jëm ci kanam mbokk yi cant gërëm ñeel na leen yéen ñi nga xamante ni yéen a àndoon ak ñun gërëm bu baax a baax a baax sama technicien du jour bi nga xamante ni moom laay àndal saa sax di ko sant di sant képp koo xamante ni àndoon nga ak ñun euh, tey nii rek laa ko def sama kër def sama fula rek nii na xanaa ëpp na waaw kay newoon naa leen chef de bande cooki fin lay dee gëmu leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah jangeen